billaay bu amee indi bu amul indi waay dukure billaay yaa gore waay yéen kii dukure waay waay kii dukure waay yéen dukure aa ah, kay du ma sandoku waay ma tanta ma dukure ala ma kii mooy Doucouré waay waay kan kii mooy Doucouré waaye kii du Doucouré ah, mosa doogu waay ma tanta ma tanta mbax Doucouré ala <laughs> ma kan bilaay àdduna boo yorul xale nga boo yorul xale nga mën nañ lay yónni ngay dem bu buñ la nee noppil nga noppi waaye boo xasee yor tuuti ñu commencé la bàyyi xel te it boo yorul bu nekkee pauvre ay rêve yu extraordinaire ngay ngay rêvé di rêvé ay building ay piscine hmm? ànd ak xale yi paati gi def deux dugg ay fast food <laughs> mais boo yoree tuuti fàtte ko c'est que muunin la kenn xamul ay mbiram dalay dalay bouleversé moom moo lay organisé foofu fooy jaar Ah, ya jobe. Ya jobe. Wọ́n pikai. Mi, ko gi yap nal de. Kañ ya nga kañ nga yambare nii. ngol def wa koor kenn koor du noonu. Koor da ngay taxaw di mom ni defante ak mom mu leer nañ booy tëdd ne la mu lay mu lay mu lay mu ne. Góorgóorlu ci suba fu mala la won

lekkunu ba suur naan ba mandi ay desit la ñuy jël wala nu dajale lekku démb boole koog tey dégg nga ma lii lañ ma fay. daara ju rëy. ñaari junni léegi dama bëgg dix jours yoo xam ne damay reposé wu dal fukki fan yoo xam ne du ma génn du ma puus du ma paas bés bu ne mille dégg nga ma teel. duggal la mbuudarale mbun daal njàngam bi dibbi hmm. mu paa bu hmm. dem mbok ngoola bu jële mbuuni ngokki waaw waaw soble wal daana direb laaj waaw walaana ndan jëp ba jop da ngay jënd bisaab da bisaab mbuudale le dret ah waaw moom moom moom loo ci def lu yewar le moom ba jëp bopp te cocktail i eh.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 il faut nga wut chronogramme bu toog boo xam ni da koy ñoom rek ñoom rek nag ñoom rek nag may daaneel xam nga nit di nga jur sa doom ba pare mu la daaneel waaf bi ngay waaf la xam lan la looy waaf mel ku gis garab lan la may deux cent hmm. nga man xam naa say say mbir loolu doy deux cent yi may jënd beñe ban beñe ngay jënd fii maire maire maire Absa Ndoye mu nekk fii. ma ni beñe dugub ngay jënd wala beñe fariñ wala beñe coppati. beñe dugub. bul jënd ci beñe dugub de jëndal ma beñe coppati mu sëyal ci tuuti suukar dégg nga ma eh beñe coppati wala beñe dugub ngay jënd. bàyyi ma ménagé ko beñe coppati cent franc dugub. yow déclaré ma woon démb ba ba ñu waaj a xëdd nga ne ma bu ma yow damay woor. waaw loolu laa la waxoon. léegi la doy doy beñe beñe beñe beñe bi nga bëgg a jënd ji nii. xëy xool li sama xel na si beñe ma ne aw ma ma ne jarul may woor. eh waay wooru xale waay. ah yéen la ngeen di xool climat bi rek nooyu rek mu tàng rek ngeen bàyyi mu sedd nga ànd ak nit ñi. nga teel a yeewu teel a teel a dog sa koor naaje yeewu daa daal di nit ñi yaakaar naa jàmbaar nga. bés boo jëndee dugub di nga delluwaat dugub bi indi sama ñeent fukk. beñe coppati. aywa lan moo la lan moo tax nga bëgg beñe coppati. dañ ci ma ci ñaari doom. dama ko soxla teel ni fukki dërëm yi moom xam naa moom moo ne ma dem ci jaxate mu jaay ma petit cola. dugub coppati. kaay coo. pati. ku la yeggalal coo. eh bam tuul li ma lay wax. coo. coo pa. pa ti. coppati. re. moom ram dëgg la tunam gi nuroo peñe saabu kii du ma doon du ma doon rim bi may daw du ko mën mukk du ko mën mukk parce que day tontu day tontu mënul encaisser ak rim um, kii mooy dukure waay waay kii mooy kan kii mooy dukure waay yéen kii du dukure ah kay du ma sandaku waay ma tanta ma tanta rambax dukure da waru naa man ci koor gi koor go xamanteni tok di bobu leg déggu major déggu kiya déggu kenn ah yalla baxna na yàgg leer Fall ah mun de damay wax rek japp jàpp sa sikkim bi nii rek tok li lan la de fois damay génn saar bi yeb nek fenen luy wut ngi ngay wut si ay saay te war la jindul ndogo ndogoo jaaxle rek ah xaw ma jaaxle xaw ma kii de waaye fu nek ni mom jarna mom li jarna jek jek dug ben keur geer ah xeyna yalla dina ñëw balaa ngoon ay ba 18 heures et quelque mu no fexe ba ndong hmm? madame Doucouré gi noonu. kenn dégam laaj bi dimbali. waaw nga dëgg waay tey nag yàlla war nañoo aidé. barki yonent bi Serigne Doucouré. déggul dara muumu la nag loo ci xamul. looy wax ni. ah mais xanaa nga dégg am nga dégg-dégg daa am Serigne Doucouré. Serigne Doucouré ñëwal cum. laay laa xëy na aw wër gërëm. awa yaay awa yaay awa yaay yaay sunu awa yaay sunu yaay awa yaay awa yaay nañ ko séddoo yàlla ñëw na barke Yonent bi kontaan nañ ci yow jàllal teggal gës gëndal gës teggal gës gëndal gës gëndal gës yaa dégg gës gëndal ma ngay dox taas ba gëndal gëndal gëndal ñus dégg na yaa dégg du ko rey séeram woote yàlla gën mu nit barke Yonent bi ñu ni koy suñu ndog neex na jéem a def ci boulangerie bi rek aja jund jund barke Yonent bi kii mooy Doucouré waay waay kii mooy kan kii mooy Doucouré waay yéen kii nu Doucouré waay mba tanta mba tanta tamba xura mba dukure kii mooy dukure waay waay kii mooy kan kii mooy dukure waaye kii du dukure ah kay du mosa doogu waay mba tanta mba tanta tamba xura mba dukure kii moom fu dama fa dama leew yi dama loof nii mel ni ku ku taw ah jobe kaay kaay yaa jobe kaay yow xanaa dama dama woon marché ana ndugg mi nga yoroon malaan bi mu de tëb dégguma de nga ne xaalis bi wala tëb. tëb xaalis day tëb. eh lu la wax bàyyil foo li ma la wax leer na duma ma sa morom foo bi ana xaalis bi dix mille francs la joxoon pour fukki fan dépense anamu. bu dee ba. Moustapha waaw. bu dee bu mu ndépp daal mu dee di la ah mun na lan dama yàlla buutu ba dee ne ah, ba ci tuum. Ah, ah, mun la lan. maa Diop. cum. ah yow Diop bee cum. cum la la wax nga jox sama ñaari junni. nee naa la mooy tur cum. Diop bu la doy cum. ah bu dem ba dama am. boo yoree xaalis doo concentré wu te bàyyi cum. waaw mu ne ah moom bële te taa la Diop. moom boo ko waa. waaw boo joxe doo jox la. ah léegi baax na loolu kay baax na très bien je te félicite. yal na la yàlla sàmm ci loolu na la leer ne kay léegi fukki fan yoo xam ne yaa ko lijjanti man moom dépense doy na sëkk <coughs> dégg nga ma yeboo sax nga jooy laa la dama ne la dépense yaa ko lijjanti dunu ndogu fukki fan dégg nga ma dunu ndogu laa la wax suufu géej gi ma yëkkati woon bu doon yaa yel yaano benn siwo di nga xam li ma daj man amuma amoo nan toog fukki fan yu dunu ndogu nga xool billaay bu amee indi bu amul indi waay Doucouré billaay yaa gore waay yéen kii mooy kan kii waay waay kii mooy kan kii mooy Doucouré waay yéen ah, du ma sadoku waay ma tanta ma tanta tambaxura ee eh, bu amee indi bu amul indi waay Doucouré billaay yaa gore waay yéen kii mooy kan kii waay waay kii waaye yéen kii lu duguure ah kay du ma sandoku mu way mbatanta mbatanta mbaxura mbax duguure